auzu billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñëw leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen fii ci Daaru Salaam si waaw yow mi nekk ci ay jafe-jafe wala nga nekk ci ay xat-xat del saxal di wax laa xawla wala xawata illa billahi aliyil asiim laa xawla wala xawata ko saxal di ko wax 313 baax na cent onze baax na képp ku ko faral di ko wax suba ak ngoon yëpp jafe-jafe yu nekk suñu borom mën na koo saafara laa xawla wala qawwata illa billahi ali aliyil azim doo koy wax mille cent onze mille cent onze nag li mu jàpp mooy laa taxaw trois cent treize bi tamit ku ko mën baax na waaye mille cent onze moom moo gën a baax boo demee ba xat ba mënatoo ko def nag defal mille defal trois cent treize bi rek baax na muy laa xawla wala qawwata illa billahi al-ali al-azimi wala ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin loolu tamit képp ku nekk ci ay jafe-jafe boo koy wax man nga koy wax 111 moom baax na boo jullee si ba pare laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina boo ko dee wax 111 boo jullee si ba pare baax na boo jullee ba pare tamit nga wax ko 111 baax na kooku tamit képp ku nekk ci ay jafe-jafe nga saxal ko di ko wax baax na boo mënee yokk def trois cent treize baax na boo mënee yokk def mille cent onze tamit baax na muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin lu am solo ngoogu ci ku nekk ci ay jafe-jafe yonent yàlla yunus moo ko waxan ba ko jën wa wannee ba mu ko waxee nag la yàlla digal jën wa mu gëq ko ca tefas ga ba mu ko fa gëqee nag ca la ko yàlla saxalal ak naajo naajo ko nag bu guddee ca xobi naajo lay sangu bu bëccëgee xobi naajo ñoo koy keral ndax ba muy door a génn ci biiru jën wa dafa mel na ni ku génn tuuti ginaar waaye nag loolu laa ko musalan baat boobu ma wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin alquran ak wax panada min zulumati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin képp ku nekk ci ay ji boo ko lay wax lu mu gën a bari mu gën a baax nag cent onze baax nag mooy xut mooy taxaw kaaf mille cent onze baax nag mooy taxaw laa taxaw trois cent treize tamit baax na mooy jay sun kon ñoo leen di jaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkk yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu